waxtaan suñu bopp parce que nag après tout euh, suñu bopp peut-être ñu si bëri phagocyté guñu ko suñu euh, koy wax ne peut-être c'est pas les dirigeants mais en tout cas euh, les les patriotes de manière générale phagocyté seen bopp xam ne maintenant la réalité du pouvoir euh, moo leen dab maintenant. Mhm. man man su may wax sax si sama langage sociologique dama naan le projet à l'épreuve de la pratique. et instant mhm. bi nous sommes à l'épreuve de la pratique te ñoo jox pour ñu doxal. Euh, donc nag loolu jar na waxtaanee parce que soo jógee d'une partie d'opposition à un parti au pouvoir ci quand la réalité du pouvoir da nga koy da nga koy assimiler gouverner c'est prévoir discuter des affaires du parti parce que pour consolider déjà les acquis mais tout en sachant que di yóbbu ñeneen ñu bàyyiwuñu fi mm-hmm. donc dañoo war a góorgóorlu nag Euh, liggéeyal askan wi. Ah, et muy le président de la république muy le président du parti on voit que ku ci nekk yaa ngi dajale ak say euh, nit mu tuddee noonu euh, waxtaan bu dee pour le président de la république ak gouvernement bi xëy na session de formation la pour ñu xam comment se comporter pour aussi le président du parti ak le militants et responsables de base xëy na wax leen li leen di xaar ci ëllëgu Sénégal la maanaam qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça réellement fi wax mooy. est-ce que du euh, yëf yi leen a bett et que a soxla benn accompagnement boo xam ne mooy tax ngeen xam fa ngeen di teg seen tànk non on est assez mature parce que nag euh, on doit apprendre de l'histoire pour man on a appris de l'histoire xam nga am parti moom euh, da ngay xool ci lu fi passé mhm. la PR ba mu jëlee pouvoir bi doon parti bu xaw a jeune moom relativement plus jeune que nous comme on a fait dix ans quand ñun mais gis nga manque d'organisation bi structuration bi fa mu leen yóbboo je pense que on a su on a en tout cas parlé des contours du parti. Mhm. nan ban parti. vous voulez éviter les erreurs de la. voilà ban ban taxawaay la parti bi war a am pour éviter les erreurs de ceux qui nous ont wax tamit ne maintenant on est à l'épreuve de la pratique dañoo war a doxal posture yu ñu war a am pour nga xam ne véritablement li ñu war diggee woon dinañ ko mën a doxal nan la ñuy def parti bi. méngoog doxalin bi méngoog do en tout cas li ñuy wane ñun ñuy ŋànk parti bi méngoog li ñu digoon sénégalais yi. Mhm. nan la ñuy fësalee très tôt en tout cas les actes posés par le gouvernement pour wane ne vraiment on va dans, vers le changement. Ah, pour la rencontre d'hier je peux comprendre la présence de Ousmane Sonko en tant que président du parti mais président de la République Bassirou Diomaye Faye euh, lan lan euh, donc moom dañ ko invité et il l'a mentionné mais nee na moom effectivement. dafa doon ñëw parce que xam na ne jotam dootu ko may ci fan yi di ñëw mu jaajafal quand même tamit parti bi lu ñu mun ti wax parti bi moo ko porté te ba mu koy porté mu ngi prison comme ni mu ko expliqué dafa génn prison rek nekk ci campagne bi mhm. daanaka ba mu nekkee ci campagne bi instance su parti bi yépp a tase woon de A à Z desul coordonnateur yi donc il fa que ne su nekkee sax ñëw pour gis leen jaajëfal leen sant leen ci quand même euh, porte bi ñu ko porte te xam na tamit ñu ngi ko dégg mu ngi soobu ci liggéey bi commencé am na li nga xam ne voilà nit ñi tamit mën nañ dégg ne boobu ba léegi ñoo ko fal bon mu ngi ci liggéey bi mm-hmm. moom occasion la woon ba mu déggee ne les instances du partie ñu ngi tase mu ñëw yàggu fa parce que liggéey journée boobu. mu ngi woon di liggéey ñëpp xam ne da cee jóge donc moo tax ngoon la ko def sa defuñu fa deux heures de temps ñoom comme ni ñu ko waxee amatul fenn fi nga xam ne instance su parti war na leen mën a tiye lu ëpp trois heures de temps. Mm-hmm. donc boo ko xoolee bu baax dañoo ñëw rek acte de présence la fa def. nuyu euh, feddali kóllëreem ak parti bi nga xam ne moo ko porté woon. Mhm. moom day dellu si liggéey ah, bi. parce que sa première sortie en tant que président euh, dafa daje woon ak la coalition Diomaye président. Euh, ba sax président Ousmane Sonko di sàkku ci le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. di sàkku ci les responsables de la coalition ñu. constitué wu benn bouclier pour le défendre li nga xam ne côté boobu xëy na fa la fa la Macky Sall tëlee woon ci wàllum wax li baax li mu def tey jii ni fu mu bëgg a jëm mooy est-ce que Diomaye Faye le président Euh, il va prendre ses distances ak le parti comme ni ngeen ko promettre woon seen Sénégalais yi. mais justement parce que déjà il a démissionné comme ni ñu ko waxoon ne du parti il était le secrétaire général du parti heureusement qu'il n'était même pas le président. pour mhm. nous parce que su doonoon président il sera obligé. de, démissionner comme on l'a dit. donc comme on le dit il sera peut-être président honoraire bi nga xam ne amul benn attache. mais deux rencontres moins d'un mois xaw a tey laa il devient président du Sénégal il a rencontré Diomaye il a rencontré Pastef non mais c'est en marge xam nga mënoon nañu wax ne su xëyee di politique ba ngoon jot ñu rencontré di def fas mais mooy li la wax journée boobu noonu yëpp moom la nekkoon wax nga ko il était avec son gouvernement mhm. donc liggéey ba 18 heures la fa yegg si 20 heures dem na donc je pense que quand Euh, nit ku liggéey ba wàcc ngoon mu jël temps bi mu waroon dem noppalee ko kii jox ko accordé ko à son parti deux heures de temps te mun naa ne l' de ce qui a di dit a été plutôt dit par le président Sonko moom deful lu dul jaajëfal nit ni remercier leen ñaax parti bi tamit ne vision bi mu nar a décliner acte de courage yi mu nar a posé ñu assume ko tous ensemble Euh, dans le cadre donc comme je de cette épreuve dont le projet est, euh, doit faire l'objet